salaamaaleykum salaamaaleykum Galsen salaamaaleykum aduna wërngal këpp ah Serifou on the mic from Wack Ngouna di am mbégte ak contentement bu baax a baax di dellusiwaat si sin télé uh, Wack TV fii si Wack Ngouna commune ah di shout out suñu gars yëpp ah ba cat eh, di béggee tamit uh, bu baax a baax suñu téléspectateur téléspectateur su uh, suñu télévision Wack TV ah, di nuyu bu baax a baax suñu kilifa diine kilifa aada ah, di ñaanal tamit bu baax a baax ñi nga xam ne jiitu nañu yàlla yërëm leen te xare leen àjjana firdawsi di ñaan ñaanal tamit aussi ñi nga xam ne tamit ñu ngi tëdd si lal yi feebar yàlla yëkkati seen yëkkati leen fëgg seen bopp ba ñu jóg ak jàmm aussi tamit di ñaanal tamit bu baax a baax ñi nga xam ne caabi féete na leen ginnaaw ñu am liberté bañ mun dellu siwaat seen njaboot ah, ak seeni activité ak jàmm ni nga koy baaxoo di ko defee ah sama gars yi ah euh, di dalalaat fii yeneen daanaan ah si suñu émission bi nga xam ne moom mooy émission bu gën a doy waar si émission yi euh, si télé bi nga xam ne tamit télé bu gën a doy waar si télé yi sama gars yi euh, may dalal ay ndaanaan yu mag a mag ñu jógee fii ba euh, Daggaboni Dramé ah ñu leen di wooyee waa booy doomu dagg yi afta bu ñëwee dinañ présenté wane seen bopp si suñu émission nag bu yéemee bi nga xam ne tey fii ndaaraan ak ndaanaan dina fi jaar ñu baaxee baaxee leen ko Euh, si suñu télévision Wack TV sama gars yi euh, muy émission bi nga xam ne mooy hip hop Saloum sama yi ah hip hop Saloum rap Saloum maanaam bu ngeen ko déggee tey maanaam rap galsen la mais tey euh, dañu gën a focaliser wu si suñu rap suñu gox tey moom la ñu gën a focaliser wu surtout man dama aimé loolu quoi dugg ci underground yi ah génnee ay new school génnee ay boy yi nga xam te ay underground lañ te ñu ngi si game bi ñu ngi si hip hop bi di ti ko teewal nice normal man am like uh, man dama like loolu gars sama gars yi acca da ngeen may topp rek si si witu émission bi incha allah ma dalal samay gan wan leen ay ndaanaan wanati leen ay ndaanaan sax sama gars yi après suñu premier numéro si suñu télévision Waka TV ak suñu émission hip hop Saloum avec Rifu on the mic from Waka sànq comme niñ ko euh, nu mu leen ko waxee woon sànq rek yeesa dama dalal ay ndaanaan euh, si biir yi ndaanaan yi sama gars yi si game bi hip hop bi ah euh, ay boy yu doy waar di leen wax tamit ngeen dal jàmm toog reste côté suñu seen Wack TV ah sama gars yi émission bu émission buy neex la émission buy doy waar la surtout tey sama ñaari ndaanaan yu ma dalal tey gëm naa ne tey dinañ leen indi surprise sama yi ah dama leen di bàyyi ñu présenté wu wax ñoom ñooy wax fuñ dëkk wax ma fuñ jógee te actuellement fu fuñ nekk di game ak fan la ñuy représenter sama gars yi asalaamaaleykum bro. what's up what's up gars yi maa leen di bëggee di leen nuyu di leen ziare di nuyu waa télé Wack bi di leen bëggee lu bëree bëri. waaw xam nga lii dafa jafe quoi yëg nit c'est parce que boo gisee tey ñu teew ci télé Wack Ngoné bi budul gannaaw yaa nag yow nag yow la tey jii dañoo jógee dàgg ba ni ñëw ñu ànd ak suñu nit ñu ngi nii ñoom Pape Serigne gars yëpp ñu ànd ñëw teewal ñu. tey jii ñu ngi teew fi nga xam ne moo di Waaka Ngouna waaw ñu gën ñoo ràññee nag ci rap ñu koy def ñëpp di ñu ci topp bëgg ñu ci torop tey li nga xam ne moo ñu dugal ci rap ak loolu lépp dinañ ci teew mais dañuy nuyu gaa yëpp di béggee ñëpp waaw kullu kuy déglu hip hop ñu ngi la koy may di béggee ñëpp waaw di ko may gaa yëpp bàyyiñ kenn di ko may suñu mafia bi pencum hip hop mi ñëpp ñu ngi leen koy may di ko may génération bu ndaw bi ñëpp ñu leen koy may di leen béggee waaw di wax ni Carbos sax tey bëggoon na teew mais dafa dugg town ñu ngi koy may di ko bégee waaw di ko bégee lu bëree bëri nag lu bëree bari waaw après li ci biir dinañ yaatal quoi dinañ gën a ah. yaatal ah, tey bu ñu la doon demandé sa tuuru artiste lan nga ñu wax sa tuuru artiste sama tuuru artiste ba dama dugg ci rab bi ma duggee ci rab bi ren si sa mooy moo doon sama premier tuuru rab ma dem ba ci biir ma gis ne tur boobu ciwul quoi après gars yi nañ ko changé ma def ko Audital double zero ma nekk sama compte YouTube Audi. Audital double mhm. ma nekk si sama turu kii quoi game. yaa yaa waaw Audital. tey sa tur sa tur dëgg naka la. sama tur dëgg Mansour laa tudd Mansour ma Mansour Dramé. waaw yesa ah, comme nu mu leen ko waxee ah Mansour Dramé mooy turam ah, mooy neeminam ah, ne vrai neem bi tur artiste bi Audital. double zero ma nigga ah di muy dëkk fële sa Dagaboni Dramé di représente rap bi di représente tamit mouvement hip hop foofu noonu ah, di ko teewal foofu noonu ak ay gaayam ah si comme nu mu ko waxee si team bi nga xam ne moom moo tudd penc mi tukkee aca damay nuyu sama bro bi balaa ñoo gën a xuutal aca tur la eh, salaam salaam sama gaay béggee naa ñëpp ku nekk turam ak santam di ah. nuyu gaay yi nga xamante ni laa àndal mi waa penc mi ibbi di nuyu sa gaay di nuyu tamit ah, Refou Tout nga xamante ni moom lañ fekk si comme na ko uji waxee rek gannaaw yàlla bu ñu ñëwee fii moom la yee kii nag Sylvain lañ koy wax ek el forom jamaa si post forom daag bana Dramé a sëb nega yes waaw yee yéen a ngi gis loolu mooy présentation uh, team bi uh, nest bi ba tey mu ngi tudd penc mi 2K n'est-ce pas ah oh, ok penc mi hip hop. Ah. wala penc mi ah mi uh, hip hop. penc mi dafa leer. ok penc mi hip hop. composé de Carbuzz Oji Talbi ak Sylvain ak Sylvain ah dafa leer ah kon ñett kese lañ ah. trois personnes yes ah, dafa leer. aja euh, dañu gën a xuus rek si débat bi tey ñu ngi fii nii ah si Wack TV sama gars yi si seen seen bu mag bi ah di leen euh, baaxee suñu émission hip hop Saloum tey ma dalal fii ay ndaanaan yes ah, ñi nga xam ne euh, seen team bi mu ngi tudd Pencumi hip hop composé de Oji Talbi. et eh, Sylvane et eh, Carbeuse mais Carbeuse dafa absenté sama gars yi eh, tamit mu teew fii trop nag waa di ko sawdaab lu bëree bëri ah respect à lui tey su suñ doon wax si cadre hip hop tey seen hip hop yéen naka ngeen def ba dugg si hip hop bi wala nan naka ngeen naka ngeen naka ngeen dundee woon hip hop bi o début ba commencé di rap. Ah, rap moom boo xoolee motivé quoi. waaw li ma motivé ci rap ba may nekk xale temps bi may gën a nekk booy. maanaam mhm. sax bi may nekk ci daara boo xoolee ma nekk si daar ji lu bëri dama doon faral di déglu Baba Ndiaye di ko déglu lu bëri li ma gën a motivé si rab exemple benn booy bu ñu naan général Yigo sama grand la. général Yigo ak Seexu ñoom gën a modifié ci rap c'est parce que dama doon jël seen téléphone bi ci cons ay soow ngaaka son bu demee ni fi mu waxee naan ah, ku ñam parce que ñam day bay xam na du benn men sa gaale gaale bi ci top may régal ndayam yesa yesa mooy freestyle baara leen bi waaw yóbbu fu seri quoi. dëggantaan dëggantaan cons du bëree bëri. dafa leer waaw mais rab bi bañ si duggee dafa tar quoi ba tey ji sax mi ngi tar c'est parce que daag ba ne gi ñu nekk bëggu dund rab. pour nga dund ko fa lu métti lay doon. dëggantaan parce que ñu lay nangul du bëri su mën naa wax ne ñun ñii suñ gang rek ñoo ko fay dund te mooy loolu quoi dañ koy négocier nii rek mais xam naa dinañ nangu ci kanam. waaye sa xam nga rab locale bi moom moo demee noonu quoi tey boo nekkee ab ndaw nga nekk surtout si suñu gox bi nga xam ne mu fii Saalum la te tamit ñun ay wa lañ xam rek pour nga dund fi yenn affaire yi yenn style yi wala nga dund fi yenn mode yi day xaw a day xaw a jafe pour parents yi accepter leen mais yow naka nga koy dundee tey ak sa waa kër. négociation rek même mën naa wane sax. Mhm. maire bi maire xam na ne maa ngi rab sax mais gaw ma ne paa bi xam na ko 100 pour parce que des fois sax nit ñoo wax ko mais du ko gëm da ko jàppee exemple ay roube wala comme ça bu mosuma ci wax dara mais mhm. xam nga mooy lu bi moom xam na ko. samay garant tamit xam nañ ne maa ngi parce que vidéo bu ma def dañ koy xam sound bu ma def dañ koy xam mais terewut ñu bëri dañ may woo bëgg ma ci génne mais xam nga ne rek ak lim bëgg da da koy jaral lu ne dëgg la sama garant sax duggoon na ci rap mais xam na ne comme liñ ma teg teg nañ ko moo tax mu mujj récalé dama rab bi dugg ma ci pour di déglu ay nit ñi wala may dugg pour récalé dama dugg pour dem ci ba jeex lu ci mënta am tamit ba xam ne noonu la demee quoi. dëggantaan maanaam kon tey bu ñu déggee ay waxam mooy que ne rab bi dafa nekk si moom te tey moo rabbi lu mu bugg a dund la te lum mu bugg carrière la tamit yesa di ko ci encouragé di ko jaajëfal bu baax a baax di ko wax euh, di la wax tamit aussi euh, nga gën a yokk courage bi parce que tey hip hop dafa doon li nga xam ne tey dafa xaw a compliqué te tamit dafa jafe amee euh, laara jiis mooy kay xaalisan ah. yesa loolu dafa leer te ku ne carrément hip hop hip hop dafa métti amee xaalis neexul foog nga boole ko des fois yenn business yi parce que am na ñoo xam ne tey ñu ngi rap mais am nañ leneen lu ñuy liggéey yaa ngi mais est-ce que yéen tey am ngeen leneen lu ngay liggéey à part rap. waaw man man sax mën naa wax ne laataa ma ci dugg sax maa ngi doon job parce que town laa nekk maa ngi liggéey maa ngi Medina laa nekk koñu El Jazz maa ngi job nice yor sama table di liggéey di taaba taaba quoi képp ku fek ay ñoom balaa joor gars ñu dañuy ñëw sama sama place bu fekk ma fa. dëggantaan c'est bien ça. parce que rap newul la xamee da ci ciy sëgg rek. Mhm. rap newul la xamee tout le temps day génne xaalis. ci yeneen yi nga mën a dem pour am money ñëw. defar say sound tourner say vidéo man loolu laa gëm parce que rab bi nekkuma ci nii rek sëgg ci kese dama ko booleeg samay business. dafa leer tey euh, mooy ko lu mel mooy sama yenn grand yi di mën a wax rek. benn métier wóorul góor du am benn métier foog lamb fi fii làmbu fee daj dëpp yaa ma gën a xam boole loo am rek dajale dóor sa poos mun a mun a tereel sa njaboot tereel sa famille tamit aussi tamit yesa tey euh, bu ñu ne rap Dagaboni wala ñu ne rap n'est-ce pas yéen si commune Wack Ngouna bi ah, ngeen bokk. te buñ tey naka ngeen gisee rab commune bu fii tey. Euh, rap commune am na avancement ba ngeen si duggee boobu léegi wala yéen kan ngeen commencé rap sax dèjà. ñun yaagul de ñun fin deux mille vingt bi lañ dugg ci rap bi ñu duggee deux mille yëpp dugg nañ ci amoon nañ ay sang ay sang mais sang li ñu am yëpp. génnul suñ suñ mafia quoi sang li ñu am yëpp téléphone lañ ko daan enregistré. di ko déglu ñun ñu neen après gars yi wax ne yéen pourquoi ngeen di génnee sang nii rek. te mënu leen ko dugal ay youtube ak yooyu ñu dem ba ci kanam dañ naan dox dem kër ma jibeel ci Aziz Siskana ah. bu KM City dañ fa naan dem euh, kale fa saawoon mën naa woon suñu saawoon bu ñu génnee moo ñu ko kaleel parce que nekk na daal la xam ne mooy loolu lu metti la billaay walaay nga xam nga yow yow moom du la wax ci rab la xam ne yem na la c'est parce que premier jour bi ñuy ñëw waaxu ngoon bañ ñëwee dañ fi ñëw laaj la gisuñ la ñu ñëwaat fi ne refoutu la ñuy laajte waa ka moom tegle nañ fi teglewaat fi ñëw fi di la seet si lu bëri sax pour gis la mais dañoo am depuis ñu gis la ba léegi amul dara la xam ne ñu ngi ko ci recruté quoi mooy loolu te ku ñëw waa ko suba teel xam ne mooy loolu rap rek nekkul sa métier yaa ngi ci yeneen business te loolu a gëm man man loolu laa gëm man képp ku may nekkal dama gëm da war am business mais rap kese mooy loolu de ma ne mën na nekk business boo xam ne lu gaaw lay doon dëggantaan non rab kese moom uh, tey rab kese bi na avancer carrément wala mun na la indil moonin fat-fat loolu tamit pour man pour man da lay wax lu lu ko neex quoi mais tey force nga boole yenn business parce que te booy doog a débuter rab imagine booy doog a débuter rab tey munoo ñëw rek nga nga gagné xaalisu rab di dem di génnee son munul nekk c'est impossible force nga dem di jënd si gerte gi ah. wala si mboq ah, wala nga dugg si affaire de maçon ah, ah ngay fayee ko journée 3000 dajale dajale pour mun a am benn saawoon tey rab bi fii noonu lañ koy dundee xaw ma na beneen gox gox bi fii ma dëkk man man fii sa fi nekk presque noonu lañ koy dundee te yéen tamit yaakaar naa ne noonu ngeen koy dundee. wala nu ko gën a tàrkee. <laughs> <laughs> aja l'homme s'appelle Odji Tall bi léegi damay jox rek so moment Sylvain après mu si quelques cadeaux mu wax ma moom tamit euh, si cadre rab bi nan la ko gisee moom tamit ak lan mooy sa gis-gis si rab bi fii tey suñu rab suñu local fii. waaw hip hop lu luñ fiy wax rek Saloum bëri na boo yoo xamante ne am nañ talent mais moyen lañ amul quoi. Ah. ku si mel ni ñun depuis lors depuis deux mille vingt ñu ngi bëgg génnee son mujj gi si lañ jël nañ dem is yoo xam euh, Kër Madiabel quoi léegi si lañ dem yàlla def assis prisel ñu ko si gratuite am na gars yu am talent dëgg la mais jàppale daal moo fi amul jàppale daal moo moo fi des hip hop fii bu amoon jàppale waa falaa quoi war nañu mën a dégg fu nekk war nañu mën a dégg fu nekk parce que fu ñu dégg bu yeneen booy jombuñu ndax luñ mën lu nekk mën nañ lu ko raw voilà booy déglu sound booy Saalum da nga xam ne talent dëgg moo nekk si ñoom mais problème mu mënin daal mooy seen problème amuñ benn taxawu daal buñ amoon tuuti baranloo moom fu gars yi dégg yi ñenn ñi dañu fi dégg waaw yes ça ok comme tey culture culture commune Wack Ngouna bi tey suñ xoolee bu baax dafa xaw a euh, tardé tuuti tey tey soo si doon wax lan ngay ñaax mairie bi pour ñu defal ñu suñu culture bi wala lan nga leen di jox comme ay parole yi nga leen di dénk pour suñu wàllu culture bi quoi pour aar bi jëm kanam. voilà xam lu ñuy wax si loolu rek maanaam ku ràcc ku nekk rek sa boor la war a jëmale. waaw am nañ ñoo xamante ni ñu ngi si kaw gi bu fekkoon nag gees nañ Saalum wala ñu teg bët Saalum kuroon Saalum romb na fii waxuma la waaku ngoon waaku ngoon fu nekk am na ku ma nekk benn gaayan bu ma nekkaloon nee na moom ba muy dégg turu mu ñëwee ba waak gis waak maanaam ko dépassé quoi fu mu noonu foog mu ñëwee waak lu mu fekk waak kii quoi fu nekk ni ñi ñu ngi fiy dégg turu waag c'est hmm. normal am na ay ndombal tànk yoo xamante ni buñ jugoon ko centre si waag liggéey waag war na mën a demee neneen quoi ba nit fu nekk la ñuy dégg waag mais boo ñëwee waag rek da ngay xam ne des na avancé quoi ça reste quoi waaw des na tey amul euh, tey euh, bu dee seen team bi euh, penc mi hip hop hmm. amul tey benn staff bu nekk si ginnaawam non pencam ibbi moom ñi di neen la. à part à part à gang bi quoi. à part gang bi am na nekk si gannaaw ku si mel ne Ameth depuis loolu bañ commencé ba léegi mu ngi gannaaw. Mhm. moom magu auditeur la quoi. mais à moom moom wax dëgg fa yàlla gang bi rek ñoo fa nekk. kon su ma déggee bu baax amul keneen koo xam ne ne tey mu ngi jàppale kese ñoo fa luñ am lu nekk rek ñun ñoo ko cotiser. yasa foo damay profité rek ma ah, ah, ñoom fuñ dëkk dèjà bu fekkee am na ñoo xam ne tey tey cadre lañ foofu noonu wala tey yàlla sutural na leen bañ mun a def dara seen poche bañ desal mën am argent de poche sama gars yi mun ngeen di jàppale gars yi pour si côté culture bi parce que tey bu ngeen defalee doomu dàgga defalu leen ko doomu dàgga yi kese mooy maanaam da ngeen defal dàgg dàgga bu nu yesa ah. pour mu gën a jëm kanam sama gars yi maa appel képp ki nga xam ne tey cadre nga rek euh, maa ngi lay ñaax nga jàppale seen jeunes si dëkk ak muy dàgga bu ni ak fu munti doona ah, muy kër yoro xoja mandera sabuya ak fu munti doon maa ngi leen di ñaana ah, ngeen gën di seen jeunesse bi euh, pour si luñ mun di rek ngeen ñu ngeen nekk si ñoom ah. euh, sinon euh, à part ça gars yi fii luñ fi nekk mooy que ne dañuy rey ak de politique politique te politique du métier. c'est ça ah. ñoom bu soxlaa nit ñi rek la ñuy doog a si terrain bi. c'est ça ne mais gëm naa ne man dàgg ba ni am na ay cadres yi nga xam ne tey ñu ngi fa te ñu ngi dugg si wàllum politique bi. te yàlla suturaal na len dara. kon donc ñooñu maa ngi leen di lancer un appel ngeen ñëw si teel moo gën ngeen di toog ba ay élection jot wala ay campagne ngeen ñëw di jéem a xëcc artistes yi wala ngeen di jéem a xëcc seen jeunesse bi pour ñu gën leen jege mais bala ngeen di jéem a xëcc jeunesse bi mu jege leen ah da nga koy wut ba pare maanaam noo koy wutee mooy que ne da ngay ñëw xool si lan lay yëngu nga jàppale ko si bu dee day ñaw nga jàppale ko si ñaw bu mu ne hmm. bu dee day bay nga jàppale ko si bay bu mu ne bu dee day rab nga jàppale ko si rab rab bu muy def parce que tamit loolu mooy dëgg tamit mais bul toog ba tey am am sa soxla bopp hmm. nga daw ñëw comme yenn gars yi ni ñu koy defee fii hmm. wàkkanguna parce que man du ma la ko nëbbu man du dunduma dunduma comme genre yenn rappeurs yi dañuy dund ñëw fii di woy ay politiciens di dugg si yenn affaires yi déedéet gëwuma loolu man lu ma gëm mooy que ne nit ki balaa nga koy ñëw di ko xëcc pour mu lay jege pour mu nga koy liggéeyloo da ngay ñëw defal ko lu mu bëgg ba pare foofu laa gëmee da ngay def besoin yoo xam ne carrément tey ci biir dëkk bi comme tey lu si demee ni wax mun a nga dugal fi tey lu fi mel lu nga xam ne tey bërëbu liggéey kaala ba jeunes yëpp di si gis seen bopp tey boo ñëwee soxla jeunes yooyu dafay yomb si yow yaa ngi comprendre foofu laay waxee quoi gars yi nag maa ngi leen di lancer un appel ah yéen ñëpp ah cat ba cat département Nioro bi yëpp ah ak képp kuy dund rap local mm-hmm. ah, maa ngi leen di lancer un appel ngeen jéem a jàppale seen ndaw yi gën leen ñaax si lu nekk gën leen encouragé pour seen dëkk bi mun a jëm kanam ndax loolu mooy jëmale dëkk bu ndaw yi avancé wu dëkk bi munul avancé sama gars yi acca comme comme noonu comme noonu la rek yéen a yéen a ma gën xam gars yi wu nañ mhm. wax nañ si si si cadre hip hop bi ni ñu koy dundee ni ñu koy jëfee ak lan lañ ci am ak ak ak naka lañ koy dundee quoi yéen a ngi comprendre mais tey buñ ne pencum hip hop est-ce que pencum hip hop mos am concert wala programme wala projet bu mos a taaj biir dàgg ba waaw pencum hip hop moom xalaa concert yu ñuy jote invité quoi concert yu ñuy jote invité si la ñuy dem mais biir dàgg ba ne moom yaakaar naa ne comme ça ni tey jii ñu organiser biir ci biir dàgg ba ne du doon loo xamante ne lu yomb la comme ni ko audio waxee rek ku dégg dàgg ku xamul dàgg ba tamit dégg nga ko ñoom si wàllu bu ñuy yëngu comme ça ni boo ñëwee bëgg leen imposer ay affaire concert yooyu day xaw a compliqué si côté quoi mais nag ko si wàllu ñu ngi ñu bu baax a baax ndax la trente ñu ngi war a génnee benn projet ah joxe guñ joxe guñ kii bi nag mais après la joxe guñ date bi mais daal si décembre bi lay génn man maa ngi jum na la trente si décembre bi daal lay génn en tout cas daal si wàllu son ñu ngi fiy job mais comme projet yoo xamante dañ koy teg di teg ay concert biir daag ba nag yooyu noonu hmm. yaakaaruma daal mu nekk loo xamante ni lu yomb lay doon bëgg nañ ko nag di ko yóbbu ay waa Koungheul di def kii concert ay Kër Madiabel ak parce que job job moo koy maye te ñu ngi si job bi talent kese moo mi ngi si. dëggantaan loolu dafa leer loolu dafa leer aca joxal ma audital bi mu wax ma tey moom naka naka naka nga gisee tey programme dagg bu ni tey bu penc mi hip hop nar a def euh, nar ko organiser foofu wala nar a teg per projet foofu noonu biir dagg bu ni tey nga foog euh, comme que comme euh, Sylvain nu mu ko waxee day xaw a jafe tey nga foog yan tànk ngeen war a dox foofu noonu biir dagg bu ni tey ba am foofu programme yooyu mais euh, comme li mu wax noonu rek dëgg la. mais suñ première vidéo bi ñu doon tourné keroog boo xoolee ci digg dëkk bi bañ fa doon tourné vidéo si temps tabaski bi. keroog maanaam bi ñu ko tourné ba pare sax ñi ñëw suñ kër bëri na di laaj comme exemple li ngeen doon def wala comme genre. Hmm. mais ku ñëw dama lay romb jàll rek xam ne li ma nekk intéressé wu la quoi ma dem sama yoon. dëggantaan waaw comme tey jii boo fa bëgg a def euh, cons dina nekk laa xam ne day critiqué ko trop c'est parce que judd ci dëkk mosoo fekk ñu samp nga dëkk bëgg faa samp cons loolu xaw a critiquer ko trop ah, à tout moment ñi ñëpp mën nañ la comprendre gars yi yëpp mën des suñu magu dëkk yi ñoom duñ comprendre ñun dañoo nekk ci li nga xam ne euh, ñoom dañu jàpp ne ñun dañoo bëgg suuxal ñoom ci luñ nekk côté boobu dañu xoole te parce que ñoom dañoo jël rab def ko li nga xam ne lu bon la ñoom dañoo jël rab def ko lu bon dama hmm. rab jàppee wu ma ko lu bon quoi rab maanaam exemple da nga ciy dugg bëgg a bon nga bon nga dugg ci bëgg a baax baax boo xoolee boo xoolee rab ñi ci nekk ñëpp ay comme chaaru ñoom ay canabaas man naa wax ñoom gisoo leen ci dara la xam ne lu waye di la wala lu ñàkk fayda mhm. boo ci duggee bëgg a waye di rek da ngay di waaw fii boo toogoon fii duggoo ci rab nekkoo ci dara bëgg a waye da ngay waye di loolu laa ko jàppee waaw di kon tey kon tey est-ce que est-ce que jotul tey ngeen ngeen ngeen jéem a génn organiser feneen ay programme di teg ay projet si biti dëkk bi yeneen dëkk yoo xam ne xaw nañ leen nangu comme tey lu si demee ni wàkk nguna comme que tey wàkk seen commune la ah. seen dëkk la war ngeen mën a ñëw fi teg fi ay programme teg fi ay concert defee si anam bi nga xam ne carrément buy mag ñu di nangu la tey ngeen tëgg fi programme boo xam ne carrément da ngeen fiy def euh, dégager ay thème ñu doon bañ loolu noonu dem ba gis ko yaa ngi comprendre ba gis programme yooyu noonu ngeen di teg ah yaa ngi comprendre tey bu ñu demee ba gis ne yéen a ngi def ay programme te nit ñi ñu ngi leen koy nangul yéen a ngi am ay fans feneen yéen ngi am ay nit ngeen dem ba tëgg programme yooyu mu réussir comme tey lu si demee ni Wack TV ñëw couvrir programme bi dugal ko si seen YouTube bi after seen magu dëkk yi nga xam ne nekkuñ fa ñu ngi extérieur wala ñu ngi feneen ak feneen di liggéey ak bu ñu demee ba day commencé di ko suivre léegi yaa ngi comprendre appel yi day daw est-ce tamit jotu tamit ngeen def loolu waa pour ngeen jéem leen jënd. dëgg la comme côté boobu sax ñàkkuñ ko parce que mën nañu wax ne soldat hip hop bu nekk Missirah mooy suñu euh, ménagère keroog euh, bi ñu mhm. amee programme ak yow dañ ko wax ko mhm. mën nañu waaw mën ngeen teew parce que soldat samedi bi rek ñu ngi ci waroon am concert mais dafa faussé. mais mais dëgg la ñun concert moom exemple bu ñu ko bokkoon bu ñu ñëwee Missirah dañ koy tëgg bu ñu demee wàkk dañ koy teg dafa leer parce que moom bépp concert woo nañ ñu mais mhm. moom la ñuy woo ne ko moom moo ñuy sax nañu am ngeen cons parce que moom. instant bi nekkatul si xam ne euh, mooy rab mais mooy suñu ménagère quoi mën nañu wax ne lépp moo ñu koy defal action moom mooy toog nañu cons am na ñun ñu dem yeeg wàcc ñibbi waaw mhm. comme tey ji waaka bu ñu fa bëggoon a tëggu cons tamit du métti dañuy ñëw nala la réew dañu bëgg a tëggu cons waaka def ko mu jeex mais xam naa day métti rek mais lu mënul ñàkk daag ba dañ fay samp cons xam naa ne dina critiquer ko loolu moom ndax affaire artiste la quoi affaire artiste la yee ça mun ngeen doxal seen maayen ba tey ngeen am lu ngeen bëgg mais après tamit da ngeen koy teg si respect rek di naxanteeg mag ñi ah, bañ bañ bañ muñ di leen di nangul yenn yi yaa ngi comprendre mhm. tey foofu noonu dama fay xaw a pause tuuti après ngeen wax ma instant bii nii ban ban son moo moo nekk à bu ngeen génnee wala clip instant bi génn nañ tourné nañ benn vidéo ah. mais am nañ beneen sound bi nga xam ne moo tudd juróomi baaraam yi exemple juróomi baaraam yi mooy bi ñu dugg ci rab bi. dañ ko tuddee woon noonu rek. xam nga waaw juróomi baaraam bi la la sound bi tudd beneen bi mu ngi sound bi kii la Ojital double zero mooy comme sama turu artiste bi. laa ci defoon rek moo nekk Ojital double zero. waaw n'est-ce pas am ngeen compte YouTube. waaw boo bindee euh, lan moo nekk si compte YouTube bi boo bindee Ojital double zero da nga gis boo bindee juróomi baaraam yi da gis vidéo yi ak sound yi ak ci biir compte bi quoi. yesa yéen a ko déggandoo sama gars yi euh, seen compte YouTube bi tijji nañ ko def nañ ci OG Talbi mooy maanaam OG espace nga def T 2 A L boo defee double zéro after nga tapé boo dooree recherche da ngay dugg seen compte. jo juddu njëkk a maa ngi MC ñoo seen baari lu ñu amee jafe lu ñu amee mu jo juddu njëkk a maa ngi MC ñoo ko bisu suñu iri sa gel booy mayaat ko bisu asmaas xiina wala di ongu kaami wala loolu moo sa ci dégg na yàlla teena daal sa lu koy gis gën a juróomi baaraam yi dara dara tolowus wërsëgu yàlla yi dara dara tolowus yàlla bu rëdd nga avancé mu rëdd nga avancé bu rëddaatee dalay avancé ku la dugal ci si bu kabasee bi bilaahi moo la dinaa la iri ba eh bro hmm. juróomi baaraam bi tey soo may expliquer juróomi baaraam titre sound bi loo may wax ci juróomi baaraam yi. waaw comme juróomi baaraam nu moom ni àdduna di doxee quoi xam nga juróomi baaraam yi tolloowut ñun la àdduna doxee wërsëg yi tolloowut nit yi tolloowuñ dara tolloowut xel yi tolloowut moo tax ñu jël son bi titre tuddeeku ko titre son bi juróomi baaraam yi quoi. waaw fan laa comme àdduna nu muy doxee nit ñi nu ñuy doxee dara tolloowut quoi boo jàppee si juróomi baaraam yi rek da ndax lu juróomi baaraam yi sutante noonu la wërsëg yàlla yi sutante boo xamee loolu rek après da ngay noppali si àdduna dëggantaan ah, lii la ñuy wax ah nee tamit ñoom tamit ay borom xam-xam lañ a ah. des fois gars yi dañ may tooñee ma yow sëriñ nga mooy loolu quoi parce que tamit tey artiste bi hmm. lu bind lu si gën a bëri moom rek moo la mën a expliquer hmm. sens bu muy waxee hmm. comme tey sëriñ bu toog ah si digg daaraam wala bi digg conférence am di jàng wala di waaraate def ay technique am dugal ci biir loolu moom kese moom moo la mën a wax lu muy signifié te artiste bi noonu la mel kon tey artistes kon artiste rappeurs kon jàppale leen comme ay kàngam ay sëriñ ndaxte lu ñuy wax dafa leer te fu leer nañ ñi lañ koy teg sama gaay yi. acca tey euh, à juróomi baaraam ndax génnewu leen beneen projet sound wala am ngeen projet sound bu ngeen di génnee. waaw à part juróomi baaraam wala mixtape ou bien album. la. procès la bu war a génn si décembre bi comme nu ma ko waxee sànq génnagul nag ki joxaguñ date bi quoi mhm. mais après si décembre bi la génne à part juróomi baaram nag Oji nag def na benn sound bu ñuy def bu mu comme bu mu annoncé léegi quoi Oji mhm. taal double zéro mais boobu moom kenn la quoi mais bu fekkee penc mi la moom benn son lañ defaale bu ñu bokkaale mii juróomi baaram bii nii mais ñu ngi waaj procès nag boo xamante ni après décembre bi dina génn ah, kon su ma déggee bu baax bi moo nekk première son première sound penc mi penc acca sama gars yene ko gisandoo loolu mooy euh, juróomi baaraam euh, de penc mi hip hop de Daga Boni sound bu nice la def nañ ko clip euh, mu doon loo xam ne ne lu dóob la ñëw ñu jël clip bi pourquoi ngeen préféré tourner clip bi seen biir dëkk waaw ma xool man vidéo bi sax daanaka ba gars yi bañ koy tourner des naa ko kii quoi dama dama toog toog rek ma ne bi la ñuy tourner ma hmm. génn xam nga rek affaire bi moom foo nga miinal ko ñi nga xamante ni ñoom nga dëkkal xam nga kuy kuy ñu ngi koy waxee sax kuy waliyaane daa fekk sa dëkk tëggul il faut nga tëgg sa dëkk wane li nga xamante ni wane si yóbbu sa dëkk quoi sin image sa dëkk lañ bëgg yóbbu sin dëkk lañ bëgg jaay ba ku si nekk fu nekk rek di dégg turu daag bëna quoi yee daag bëna lañ jenu sas bi lañ jenu quoi te loolu noonu lañ bëgg réussir moo tax sin première vidéo ñu tourné ko daag bëna googu pour jaay sin image sa dëkk ku nekk di dégg daag bëna fu nekk dëggantaan dëggantaan kooku mooy Sylvane sama gars yi dama sa team euh, penc mi ah mu wax lu nice ah lu mu wax li tegu na tegu na te tamit euh, nice na trop euh, mooy que ne tey euh, boo gisee tey ñu bëri ñu ngi tourne clip dem ci ay hôtel di imposer moom nee na fëlagul foofu quoi loolu jotagul tey lu ko yitteel mooy que ne fu mu dëkk ba pare mu jëm ko defar foofu noonu jéem a miinal gars yi jéem leen ko taamal taamal leen seen bopp te loolu kat mooy deg nit ki balaa ngaa balaa ngaa dem feneen di di di wuti feneen liggéey Ah, da ngay da ngay njëkkee sa dëkk xool boo xam ndax ko am na wala amul fi nga dëkk foofu ngay commencé gars yi comme nuñ waxe waxee rek bay sa weewu tànk yesa mm-hmm. loolu ba tey mun naa ko jël tuddee ko bay sa weewu tànk ah, sama gars yi acca da ngeen may topp rek ñu continuer si émission bi gayeen ah, on toujours euh, sur Wack TV ak seen émission hip hop Saloum ah fii si Wack Ngouna commune suñu télé bu mag bi suñu tele bu doy waar bi ak émission bu dóob tey nag ma dajale ñaari ndaanaan de penc mi hip hop de Dagaboni dama koy bàyyi rek moom mu jox ma yan idée la am wala lan la bëgg a dégager tey lan nga lan lan nga lan nga bëgg a maanaam sa cadre si looy dund wala euh, si si hip hop bi maanaam si hip hop bi quoi cadre hip hop bi quoi. wala lan nga bëgg a expliquer sa tim maanaam loo bëgg a wax daal. en grosso modo. bégee gang rek di bégee waa team bi yëpp di leen bégee waaw di ko teg ci loxo pap koi di bégee gaa yëpp ay ñoom Kéba Ibu Diallo Ousmane bàyyiwuñ di ko may kaar bës lu bëree bëri di ko may kaar lu bëree bëri waaw dem dugg Medina dem may ko waa Mati Tilène lu bëree bëri c'est parce que ñu dañoo sonn ci man fu ma jaar dañ may laaj say sound ay comme genre quoi waaw di dem Mati Tilène teg ko ci njàpp faal pour ma joxal ma ko gaayeb may ko ma sàmba borom tisi yu baax yi di ko bégee di may gaayeb mu dem HLM jox ko Omar Fadje mu joxal ma ko gaayeb ñoom Layane Gueye ñooñu suñ grand lañ woon quoi ñoo def hip hop ba waaw tout le temps bu ñëwee dañu laaj quoi ana sound ana sonal ñu Omar Fadia di ko bégee lu bëri di ko may gaayab waaw du bégee ma mafia bi daal lépp ñoom la lu am concert ñoom ñooy nango ñëw bu leen jaralee sax des fois concert day jar gaay dox dem barki alxuraan ñu dem concert ma génnee dara jëndal booy ndaw yi ticket ñu dugg misère dem nañ fa concert ba tey mooy loolu xam nga te loolu gang moo ko man gang bi bu àndul rek dara du baax gaay yi ñëpp euh, donte ñun sax am na ñoo xam ne ñoom ñoom ñoo ñu mag mais dëgg dañoo nangul ci ci luñ nekk ñoom fekk ñu ci instant bi ñoom ñoo ñu jàppale ci lépp fépp fu ñu dem buñ ne am nañ mbooloo gars ñoo tax buñ tegee cons buñ fa demee day fees tepp dañuy yóbbu gars yi ñëpp ñëppay dem feesal cons bi waaw di may gars yi ñu ngi koy may ñoom ñoom ñoom alaaj Abdou alaaj Njega baayuñ ceen waaw di ci woo nag euh, Serigne Mara Dramé Serigne Mara. Serigne Mara Dramé waaw ñu ngi koy woo Mara. dafa lay waaw Pape Lay Guèye ñu ci woo gars yi pour ñu jàppale ñu si suñu sound waaw ñun daal ku ñuy dimbale pour ñu kale suñuy sound daal lañ bëgg parce que sound yi nekk ci bopp bi te mënul dem ci studio bi amul njëriñ. waaw dëgg la sound yi c'est normal mu daw mu génn ci boob bi dem ñu xoolaat yeneen sound dugalaat ci bopp bi génnee. dafa leer waaw loolu ñu bëgg. waaw di ko may gaayam waaw loolu daal lañ amoon ci lu ñuy wax. aca waaw. joxal ma Sylvain ma xool moom tamit lan la may. taajil wala lan la may paketeel. voilà fu Cargo nam tuddi sa audital yem la ñuy dalee rek comme di sant ñi nga xamante ni ñoo ñu ànd ñoom la ñuy àndal mi ñoom Ibi Diallo Pape Serigne di sant beneen Keba bi Sapour Moulamin bàyyiwuñ kenn daal en tout daal kuñ kuñ kii ku nekk rek seen xel tudd na leen du nuyu ñi nga xamante ni ñoom la uju wax léegi mi Omar Layen Gueye di leen ko may bu baax di nekk gaay yoo xamante ni yii jàppale daal di oo sëñ Mara tamit xam nga na ko daal mu kii ñi seen gannaaw mu nekk seen gannaaw daal. ye di ko may ñëpp di ko bëggee ñëpp di may waa daag bi nii yëpp bàyyiwuñ kenn daal ku da ngay di ko may carte bu baax baax ndax bu ma sañoon invité kii bi mu fekkee ko wax dëgg fa yàlla mais xam nga dafa waa dafa am benn jàpp ko tere ñëw dafa war a dugg taawun tay di ko di la ko may bu baax a baax carte bu ok tey su ma déggee seen euh, wax bi sànq tuuti ah. Mm-hmm. Euh, ma ma def benn pause bu ndaw si sëñ Mara Dramé mu ngeen di tudd. Mm-hmm. lan mooy relation bi seen diggante ak sëñ Mara Dramé. <coughs> waaw balaa may ñëw sëñ Mara di sant sama grand Mansour Dramé di ko may bu baax eh sëñ Mara dañaa yàgg sëñ Mara moom ku ñu bëggal boppam la ko dëgg fa yàlla teg nañ ko foo xamante ni mooy loolu quoi maanaam mënuñ di ko wax mais dañ ko bëgg jëfee rek comme mu gis ko nekk na koo xamante ni ku ñu jàppale si lu baree bari la ndax maa ngi fàttaliku biñ bëgg dugg si affaire yi si ñu njëkk waxtaanal moom si la bokk moom sëñ Mara si ñu njëkk waxtaanal si la bokk en tout cas daal suñu yéene si moom ñu ngi ñaan yàlla matal ko am na loo xamante ni d toog di ko di ko wax mais am na si moom mi sëñ koo xamante ni ku baax ku oyof ku wàccee boppam yàlla xam na ko suñ relation ak moom buñ doon si wax fii ba suba du jeex quoi ñu ngi koy nuyu bu baax di ko siyaar di ko ñaanal gudd fan gud gu yaram voilà quoi ñu ngi koy bàyyi xel moom sëñ Mara moom tamit nañu bàyyi xel. acca kon di am mbégte ak contentement bu baax a baax ah, si sëñ Mara mi nga xam ne mu ngi jàppale samay copains. Mhm. ñi nga xam ne ku leen jàppale rek jàppale ma waaw yee sa ah, parce que ñoom lépp lu ñu nekk rek wala lépp lu ñuy dugg rek ah, ñoom dinañ ma si fas yéene yéene ma si ba boole ma si seen bopp ñoom ñoom moom dañ ma jël rek boole ma seen bopp waaye luñ ma bëgg benn rek raw naa leen ko lu bëree bëri sama gaay acca euh, di am mbégte ak contentement bu baax a baax ah, di partager yéen suñu émission hip hop Saloum sama gaay nii lay demee tey euh, ñoo ngi woon ak euh, ndaanaan yu mag yi penc mi hip hop de Dagaboni Euh, composé de Carbeuse ma meen moom nga xam ne tey dafa absenté ah, ma meen Sylvane en ma meen Oji Talbi maa nekk ah borom double zéro yesa di sawdaab gaa yi bëri bëri ah euh, di leen euh, jaajëfal bu baax a baax téléspectateur téléspectatrice su télé bi Waaka TV di jaajëfalaat gaa bu baax a baax ah ñoom ñu toog di suivre télé bi ah taay wuñ benn yoon suñu téléspectateur téléspectatrice su télé bi di leen jaajëfal bu baax a baax ah ba tey yéen a ngi seen émission hip hop Saloum fii si Waaka TV moom mooy acca euh, tey bu ñu ne la Wack TV tey looy wax si Wack TV. Ah, waaw Wack TV nekk na télé boo xam ne man li ma koy suivre sax bëri na c'est parce que su ma juum yaa ma woon na ma Wack léegi am na télé ma dugg. Ah. bind fa gis leen yéen ngeen ci liggéey lu rafet yow Refu ak sa gaañ bi di ci job lu nice ah, waaw Modou ak ñeneen ak ñeneen. di leen ci gis ngeen di ngeen def déplacement di dem di jëri ay mbër. di di si def du daal man même booy yi ñëpp képp ku may suivre dama naan la. dama bëgg ngeen dooleel waa Ka TV lu bëree bëri c'est parce que euh, waa suñu lépp lañ ñu ñu nag waa Ka lépp lu ñu euh, nekk suba ba ngoon xam nga ne mooy loolu daal. te di wax gaa yëpp képp ko xam ne daal bëgg nga Odji Tall Double Zéro ngeen di dem waa Ka lépp lu fa xew ngeen dugg fa like def lépp waaw pour ñu dooleel télé parce que télé waa Ka bu amee doole waa dagg bi dañ ci gis seen bopp ñeneen ak ñeneen dañ ci gis seen bopp loolu rek laa bëgg quoi dara ñu bëggee télé waa Ka bi bëree bëri nag di ko may ñëpp waaw waa ngune yëpp bàyyiwuñ kenn yëpp acca uh, Sylvain daam loo ci bëgg a comme lu ko Oji waxee rek fu mu yem rek fa la ñuy kii quoi di wax gars yi rek nañ suivre télé bi waa hmm. waa Ka TV Ah, di leen ñaanal yéen ñi nga xamante ni yéen liggéey si télé bi ngeen dem ba gis seen bopp foo xamante ni séentuwu leen ko woon yal na yàlla may na loo xamante lu kawe seen njort lay doon parce que Waaka TV moom Waaka TV li ñëpp la ñin la fi nekkal quoi askanu Saalum la fi nekkal kon nañ ànd ñun ñëpp quoi nekk benn bopp fas yéene jàppale li nga xamante ni mooy Waaka TV ba fu ñu dégg yeneen rajo yeneen télé yi ñu ko fay dégg am nañ talent bi mën nañ comme gars yi ni ko waxee rek sama gars yi ak uh-huh. Aba Papa dama leen fàtte woon quoi. dëggantaan yee di nuyu suñu waa kër ñëpp ay ay Pambay ay booy ñoom dabaax ak am su booy di bëggee ñëpp daal. aha cat ba cat yesa comme ni nga ko waxee rek aca di leen jaajëfal bu baax a baax ah. léegi nag nu may def na mooy dama koy bàyyee micro bi ñoom ñu seqi ñaari micro yi ma rocceeku ndànka ah, ah sama gars yi ma bàyyi leen ñu def benn acapella freestyle bu nice after ma dellu si waat ñu doog a tàggatoo ak yéen sama gars yi acca moom eh rabbi nekk lu ñuy jaa ngi booy lu ñuy ji la dama ko jiidee ba mu sax man de di ma kerral nga ne yaa ngi sut bay lekk mburu si ko bopp te fu ñuy su ko toll de ana ku ñuy attee tamar tëgg boppam pig du tëgg tam gannaaw du topp kuy taxani bàyyi kuy bojji kul njëkk si néebu lëndam moo lay wonde fi ngay tooge e gofa ke nge sim na setul mënta jiitu mbaam dërëm may aan gofa du maa yow kon fu ñu ma tuddeetu dafay mel nag yàlla fii la nga moom lu nga bokk luñ la boole fi ne lii dafa fees foo tuuru paan bu fees a tuuru mais si biir nga teg si biir ma teg lu leer nga teg lu lëndam ma teg fi xol nga teg fi xel temps bi doomu ñaay laa kenn du ma ñaanal boo yaan nga rëy gudd fan a soxla fukk oto kër yow ñu lay diri ngay tàmbatu fu lay diree kon yow si paaka si digg pour ndax dina dawam yaa penc mi woote na sayfa ku ñeme ñu kaw ku gën a ñu jaase baay iri ko yóbbu libi jënd ko dibi su pere ñu mujjee ko dibi eh soldat bi démissionné ñun ñu abonné fële signal te duñu klaxonné fan si yeewu leen bit bi ñu jëli ko jëli compte bi abonné sona mere ba ñun ngay koso bëgg da ngay teggi noonu penc na rapport ma dagg di sama frigo what up mu ngi baax quoi di béggee gars yi nice ja ja ja ma man uh, loolu mooy seen freestyle acapella ma man uh, bu ñu joxoon yesa Euh, mu doon freestyle yu doo freestyle yu ma nanguwa freestyle yu ma accepté wane na booy booy ñu ngi wane ne carrément que ne talent bi mu ngi si ñooma ah. ak euh, d'après clip bu ñu seetaan sànq juróomi baaraam ñu ñëwaat defaat lii tey ah mu ngi wane ne ñoom ñu ngi si yoon bi tey ñu ngi liggéey ku déglu texte bi rek nga xam ne ne carrément euh, gars yi ñu ngi wax quoi ñu ngi wax te tamit waxuñ ak làmmeñ mais ñu ngi wax ak xel waxuñ ak xol tamit eh, mais ñu ngi wax ak xel tamit ba tey yesa ah, di leen jaajëfal bu baax a baax di leen gën a encourager rek ngeen gën a jàpp te incha allahu rabi dina baaxaa mbir boo si nekkee day tar rek mais euh, plutôt plus day ñëw sama gaay yesa incha allah euh, c'était Pencum euh, hip hop de Dagaboni euh, composé de Carbeuz Momen en euh, Momen Sylvan en Momen Talbi Oji Oji Talbi double zéro ah ñoom ñoom lañ dalaloon si suñu émission hip hop Saloum euh, fii sur la scène Wack bi di am mbégte ak contentement bu baax a baax di len jaajëfal ah di kontaan bu baax a baax tamit ci téléspectateur téléspectatrice ak surtout maa xam ne ñu ngi YouTube di dem abonné Euh, di partager di di commentaire tamit aussi di aimer suñuy vidéo ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di ñaaxaat yeneen gars yi si des ñi wax ñu ngi leen di ñaan euh, ngeen dem abonné tamit si suñu page euh, def kom yenn gars yi nu ñu koy defee aimer commentaire partager sama gars yi aca loolu laa leen indiloon si suñu première numéro première numéro première émission sama gars yi fii si seen Wack TV ah, yéen a ma gën a know hip hop Saloum rap Saloum rap suñu gox sama gaay si la ñu gën a focaliser wu di jaajëfal bu baax a baax ca mafia bi cat ba cat acca sama ñoom euh, ton ton euh, tonton Aziz Dem tonton Birane di leen jaajëfal bu baax a baax ñoo ñooy sama mafia cat ba cat bi c'était Rifu on the mic from Wakongona ah fii